dañu ñëw fii tey pour seede ci kanamu taarix ndaxte am na un waxoon nañ ne sénégalais yi dinañ ñëw tabax centrale centrale boo xam ne sénégalais yi ñoo ko xalaat ñoo ko bind ñoo dem uti xaalis bu ko defar ñoo koy tabax te yaakaar naa ne tey machines yii nii ñu ñu ñu ñu ñëw tey jii nii réceptionné fii nii support port autonome de Dakar nekk na seede bu gën a wër ndaxte machines yi ñooy équipement yi mag yi nga xam ne si la ñuy toggee courant bi ba mun ko jox population bi loolu nag buñ ko defee dañuy ñëw dëggal lii nga xam ne moom la président waxoon mooy Sénégalu ñëpp ak Sénégal pour ñëpp Sénégalu ñëpp mooy lan mooy lii nga xam ne am na ay at ci ginnaaw ay tubaab ñoo daan ñëw dessiné ko dem kii ko ñëw tabax ko jox ñu ne ñu exploité wala nii ak nii ngeen koy defee léegi yàlla def na ñu moom suñu bopp ba mun a ko xalaatal suñu bopp mun ko rëddal suñu bopp mun a uuti xaalis bi mun ko tabax ba bu soobee yàlla dinañ ko mettre en service fii balaa nga xam ne at bi dina jeex loolu nag suñ ko munee dañuy gërëm son excellence monsieur le président de la république Macky Sall ndaxte lii xalaatam la moo ne yàgg nañ def production ay nit di jóge bitim réew ñëw di indi seen xaalis di tabax di exploiter après jël xaalis bi di yóbbu di dem jot na nag fu mu toll nii comme Senelec yàgg ngeen si ngeen nekk bra technique bi nga xam ne yéen laay utiliser indi ay yeneen doomu Sénégal yi nga xam ne am nañ alal buñ mun a dugal ci biir ngeen booloo defar ko maanaam mooy lu may wax ne dafa jël production indépendante boobu sénégaliser ko maanaam di début à la fin lépp Sénégal lay des Sénégal la jógee kon boog dañ koy sant di ko gërëm ndaxte bu mu koy désidé yombul woon bum ko bëggee def dëgëroon na trop waaye terewul mu topp ñu encouragé ñu wan ñu ne dañu war a continuer ndaxte lii dafa nekk précédent boo xam ne il faut mu marqué ko pour wane son patriotisme économique ak amour bu nga xam ne moom la am pour si Sénégal bu lii ñëwee tey jii nag ngeen gis ko mu gaawee nii moo tax damay sant di gërëm sama frère Muntaga ndaxte wax dëgg yàlla lii nii mu def tey lu rafet la man maa ngi soog a ñëw mais depuis le début mu ngi fi taxaw lii nag mu def dafa traduire li nga xam ne moom la ñu président de la république wax moom la bëgg ñu def ndaxte daf ñuy wax toujours yéen société yi nga xam ne yéen a ŋànk Sénégal bu ngeen jàppalante dina mun a nekk njëriñ pour Sénégal dina mun a nekk njëriñ pour sénégalais yi la preuve mu ngi nii tey conteneurs yi lu ñuy bëri bëri bëri lu ñuy diis diis diis lu ñuy yaatu yaatu yaatu si ñetti fan génnee nañ ko si port bi

équipe yi nga xam ne ñoo nekkoon équipe de négociation yi ak équipe projet bi nga xam ne am nañ si suñu doyen Abdourahmane Ndir bi nga xam ne ñun ñii moo ñu dugal Senelec ñëpp booloo taxaw pour jëmmal vision bi nga xam ne moom la président de la république am kon tey jii nii bës bi bésu seede la mais bési sant yàlla la ndax ñu yàlla defal pour ñu liggéeyal ko suñu réew maa ngi leen di sant di leen gërëm. taxaw fii di fàttali waa Sénégal amugul te amutul benn bateau. buy costé géej te doo mun a yegsi ci port bi loolu la ñu amoon ñetti fukki weer yi passé ci fukki weer yooyu ñu teste ay méthode de travail liggéey ci ak suñu ay natango ci wàllu poor bi les transitaires les commerçants les transporteurs les lignes maritimes les concessionnaires les dockers et le personnel di poor ba ñu yegg ci ci résultat bi résultat bi nag du gulet parce que depuis janvier ba léegi amuñ ci benn gàllankoor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 44 porte char yu ñu indi woon yëpp nañu marchandise bi dem na yii nekk fi yu gën a yu gën a rëy directeur général u Senelec nee na dina def kéemtalaayu kattan pour ñu dem ci guddi ñu bañ a perturber suñu liggéey Macky Sall nag def ñu jàngal liggéey liggéey bu baax bu tar nga def ko bon di premier coup ñu la lëkkaloo ak waa Senelec directeur général de duwaan ak acteur port moo tax ñu am résultat bi lii nag su ma ciy wax damay xalaat li DG wax léegi énergie moo yor économie réew ñu dem ba Sénégal war a xelal ay ndawam ñu dem uti xaalis bu toll ni deux cent quatre de francs CFA ci technologie bu bees di di di defar Sénégal di préparer wu ci wàllu gaz ak pétrole loolu ndam la pour le président Macky Sall ndam la pour le secteur lii laa amoon li ma ciy wax ku am bateau nekk géej. buñ ko yëgee Sabatou du def cinq jours